ah non mais dañ ñëw ba fi door a xam ne lii la dorin ñaw quoi boo xam ne li doxul mais garaawul amul problème kon gars yi sama gars yi c'est pas sérieux tey nag fi ñuy génne fu cuwee la ànd ak ay buletama ku nekk xam ne ne nag Barack Obama am na loo xamante ne ni booba léegi mi ngi ci doon dox ay jéego ak sunu njiitum réew yàlla sottal na ko kon nag ku doon inondé ku ne di taa baa ngay ball baa ngay sennay seep bu la yeboo nag ne alhamdulilah parce que jarul sax ma ciy sori baal ma dégtal leen élément bi Magneto. Eh, so man président à Jeunes d'Amérique yéen waa banlieue Sénégal ak képp ku fay inondé seen coon jeex na je suis sur la tête des États-Unis d'Amérique drawing day to monde bi you know indi leen fii ci Washington e ngeen dëkk ci gratte-ciel en tendant nawet bii di jeex seen gaay et bu ñu ŋàccee seen dëkkuwaay yi USA États-Unis d'Amérique moo leen di dundal et eh, moo leen di you know moo leen di dox ngeen lekk ak ngeen naan mais il faudra que ça soit clair li mu leen mun wax so mooy que ñun bu ñu de euh, euh, euh, courage ñu del kon alhamdulilah yéen ñi dëkk ay ñetti mbaar Médina Gounass jàmm gën banlieue daal yéen banlieue banlieue yéen yéen a moom lii voilà léegi nag dañuy jàllaat ci beneen affaire la waaj doon way naan donkaasi gi njoowaanas buubu golo la bu ne tip dagg katit problème taxaw na amoon na doole géwél yi daan ka dar waaye tey nag nii la ko ñun ñuy rombe comme oto rek ni ñuy rombe nii nii la ko ñun ñuy rombe mañato gis nga de àddunaa ngi nii gis nga fi ma mujje maa ngi nii jeexalu moon dara moo tax bu buñ la boo bis booy folleeku maar day taali musiba day am amul bu lu ma mënul woon def ci biir digg diggi dëkk bi xoolal tey fi ma mujje ah toog nii ñii ñëpp ngay gis nii ñu taxaw nii ñu ngi nii tout ñii maa ngi leen di xaar pour ñu wàcc seen bureau yi pour dépense ba ma yóbbu kër ga kenn faale wu ma xoolal ma maa ngi koy xoolal ma ngay dem te suba ak léegi mu ngi may xaarloo fii ma ngay dem xoolal xoolal Jean Claude mii lu ne def naa koog moom. waaye gis nga bu wàccee otom nii la may rombe xool ko ah lu nekk amoon naa ko ci biir réew mi ah mais ay léegi gis nga maa leen doon mayi bon essence mais tey nguur foo folleeku na ah Sorano luñ fa xewloon man lañ koy tuddee lu xewoon ca dëkk ba man lañ koy tudde ah waaye léegi gis nga mu ngi nii paate paate xoolal ma xoolal ah xool jeex na Ibra gis nga nii de la ñuy dundeek man xool kii moom ma doon jaay jën bis bu yàlla sàkk xool ni may rombe léegi jaay naa jaay na ma jën bataay yi da doon ñëw ma jënd paan bi yëpp xoolal booy bi sama oto fu mu mosaan taxaw maa ko raxas xool ko mu ngi mel ni ku ma xamul